aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar kunte di la masawu coono di feddali rek li nga xam ni moom la ñu wax dañuy ubbil suñu mag muy le DC Ahmed mbay mi nga xam ni moom moo jiite délégation bi jóge ci suñu président muy le directeur général de la l'AIBD comme ni ngeen ko waxee muy Abdoulaye Dieye nekk itam président mouvement Siggi jot na ci la nekk mu nekk basam mu ci doon liggéey lu yàgg te ba mu ciy liggéey lu yàgg yorul benn responsabilité ci état ci la doon dugal loxoom ci wàllu diine lu mu dégg ci këru diine yi jóg dem def ci loxoom ba yàlla mi dara tewul def mu am responsabilité état ñu nommé ko directeur général AIBD président de la république Macky Sall def ko ko bi mu ko ko defee it mu xam responsabilité bi mu yor ci réew mi xam ni pouvoir spirituel ak pouvoir temporel mo fi nek ben mënu ci dem te yóbbuwul morom mi mom motax ah bu lu mel amé muy gudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mam. Warna war yëngatu ngeen xam ni yëg na bés bi te ci la bokk ànd na ci ak yéen noonu la ko defee ci këru diine yëpp ci màggalu Touba def na ko gàmmu Tiwaawan def na ko cees mbooleem këru diine ya fa nekk ak tarixa bu mu mënti doon kenn ku ci nekk nii mu def fii def na ko foofu fii nag yàlla boole ko yenn particularité ni ñu ko waxe sànq wala ak Serigne Baba tabaarakallaahu mu ñëw ànd ak délégation bi pour ñu ñëw indil xalifa bi nuyoom suñu mag giite délégation bi muy Ahmed mbay mii nga xam ni mooy directeur cabinet politique am tabaarakallahu ak mbokk yi nga xam ni ñoom la ñu fi lim ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom boo teewoon rek mën nga représenter président Ablaye waaye mu yabal Ahmed te ngant moo ko teree teew parce que dafa dem mission waaye kon day ñëw fii ndax doom la ci kër gi sët la ci kër gi jarbaat la ci kër gi kon tey kontaan naa bi ma président boolee ci délégation bi ma ànd ak ñoom ñëw fii di introduire suñu directeur cabinet kon fii suñu kër la. sëriñ bi Kunta ñu ngi lay ziar euh, di la wax jox sa wàccuwaay euh, di ziar kilifa yi ñu fekk diine yi ñu fekk yëpp euh, sëñ Yaxya ñu ngi lay ziar bu baax di ziar monsieur le maire Ousmane Gueye bu sali macha allah jëwam rafet na trop ci woyof geeg yëpp bi ñu ñëwee léegi rek firndeelaat na ko. te loolu la ko Sénégal yëpp jëwee euh, ci taxawaay ak jege population yi maanaam c'est un exemple de maire c'est la première fois qu'on se voit mais tur bi ak jëf ji euh, tas na ci Sénégal ci proximité bi mu am ak population yi jege bi mu jege nit ñi ak OF ki macha allah yàlla na ko yàlla saxal si loolu euh, ñu ñu xaaj Bécaye Mbaye bu baax a baax ci turu délégation bi ñu àndal yëpp ak ci turu DG Abdoulaye Dieye président mouvement Siggi jot na euh, kilifa gi ñu ngi lay ziar bu baax euh, di di yóbbante niveau euh, DG Abdoulaye Dièye nga jàllaleel ñu ko ci xalif général bu njaasaan ñu koy ziar di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak wérle ndax ñooñu fu ñu toll dañu war di ñaanal ndax Sénégal nag wax dëgg yàlla cëslaay bi ñoom la Euh, ndax seen maam ñoo ko liggéey dundal ko ci diine jaamu ko fi yàlla ba yàlla nangu seeni ñaan ba tey héritage bi nekk seen loxo bu Sénégal amee stabilité euh, sunu këru diine yii la ndax amuñu lu ko gën a cher moo ñu gënal pétrole moo ñu gënal gaz moo ñu gënal wurus moo ñu gënal jamaa ndax mooy lépp ndax moo ñuy defaral sunu àdduna euh, tax ñu mën a yaakaar sunu àllaaxira ëllëg

Euh, lu yàgg a yàgg ay at ci ginnaaw ba ko rek bañ fi mujjee di jaale si euh, ci fekk xalis bi nelaw bi ñu fi ñëwet firndeelaat na ko euh, DG aussi nii la yónnee woon ca ndànk bi ñu def seen gàmmu mu yónni ñu ci xalif bi ñu dem fa vraiment teew fa ak délégation muy yóbbu fa ay teraangam sàkku fa ay ñaan ndax xam nañu ndànk li muy représenté ci waa Njaasaan loolu yëpp bañ ba mu ko gëstoo ba xam ko Euh, bu ñu ko ci sollicité rek da daal di yebal délégation mu nekk fi woon waaye man mi maa demoon ànd ak délégation vraiment teew fa muy bërëb bu ñaanukaay di bërëb bu yaakaaru donc tey nag ñu ñëwaat fii ci gàmmu Ndiassane édition 2023 euh, ñu sant yàlla bu baax ci liñ ko fekkee ndax guddi Seydina Mohamed moom ku la ci boole rek euh, kooku moo la dimbale te sant yàlla la moom nag dafa nekk France ci benn forum boo xam ne nii euh, partenaires yi nga xam ne AIBD SA daf leen a bëgg ñu investir ci euh, secteur aéronautique bi euh, loolu la fa nekkee te àllarba incha allah suba ci la ñuy jeexal loolu. loolu nag mu ngi ci sàkku ñaan ci ci yow waaye di ko sàkku ci xalif bi mu ñaanal ko ci projet yi nga xamante ne président de la république son excellence Macky dénk na ko muy concernant la ëpp aérien ndax li mu bëgg mooy. Euh, aéroport international nekk Blaise Diagne nekk célébé euh, yoonu aéroport yi ci Afrique moom la ñuy wax la ëpp aérien ndax am nañ fa ay projets yu am solo yu mu nekk di doxal yu ci may na aéroville bi ndax ci bi Covid bi amee euh, avion yu bëri dañ naan am jafe-jafe def escale Sénégal ndax boo wàccee aéroport doo am foo dal ñu bëgg nag comme ni Paris Bercy men autour de l' aéroport ñu tabax fu ay hôtel am ay restaurant tabax fa ay ay ay bureau manam defar fa une nouvelle ville de telle sorte que euh, ku wacc aéroport Blaise Diagne da mëna def escale à cinq minutes nga mëna jëlat sa vol nga continuer amna aussi benen projet bu ñu wax ay mag euh, bo xamné ni ci lañuy former ay techniciens yu réparer avion yi mais aussi ay pilotes yu dawal avion yi loolu ñu koy tabax ci base aérienne ci nek na projet bo xamné président Macky Sall moko santané mom mu nek diko doxal ndax ay pilotes daaw ñu leen former Sénégal mais su école bobu soté incha allah suñuy doom doomu Sénégal ñoy euh, dawal suñuy avion euh, Air Sénégal mais aussi amna na benn centre euh, aéronautique bu ñuy tabax bless Diagne bo xamné technicien techniciens yi ñi yi koy réviser avion yi ndax révision avion aussi dawul amé Sénégal da nga daan génn Afrique du Sud wala nga dem États-Unis wala France waye su loolu soté avion bu ñew def escale technique mën nañ def révision avion bi té ay doomu Sénégal ñooy def révision yi suñuy doom ak suñuy jarbaat ak si suñuy famille ñooñu ñooy def liggéey bi donc mu nekk ñetti projet yu am solo yoo xam ne ni day laaj ay partenaires mu nekk nag di def ak ñoom forum à Paris te macha allah dem manifestation d'intérêt yi bari na donc muy sàkku ñaan si loolu ndax yéen su ngeen si ñaanee macha allah yàlla da koy nangu te yooyu yëpp vision président Macky Sall la nekk di doxal donc mu nekk liggéey bu diis buñ ko sant mais ku xam Ablaye xam ne macha allah yàgg na ci liggéey ndax ci privé bi la nekkoon comme ni ko El Hadj Salif waxee lu mu am ci alalu boppam jox na ko population Thiès yi ak Sénégal de manière général ci wàllu social mais surtout ci diine nag ndax côté diine moom macha allah def ci mës di taxaw muy xale bu baax bu yaakaaru koo xam ne nii dañuy sàkku ngeen ñaanal ko yàlla may ko gudd fan ak wér yàlla yokk ko ndax bu yokkee rek population yi yokk ndax wax dëgg yàlla dencul dara bëggul dara. buñ ko falé dafa ma amet Ahmed ah man bëgguma ci gis sama bop dama bëgg askan bi gis ci sen bop dama bëgg yaakar bi président am ci ñun ñu def lu lu wessu njortam to lolu yëpp nak ñaanu kilifa yi daf ci am solo donc ñu ngi sàkku ñaan bu baax euh, di Daniel kàddu yi rek ci ñaanalat khalifa bi ñaanal leen ñaanal njabot gi yëpp yalla may leen gudd fan yalla may leen wër waye ngeen ñaanal réew mi jam nawet bu barkel waye senegal ngeen ñaan fi jam ndax yéen su ngeen ñaanee jàmm yàlla da koy nangu ndax seeni maam liggéey nañ ko barki démb démb ak tey donc ñu ngi sant yàlla bu baax di daaneel kàddu yi di joxaat sëriñ bi wàcc waayam di sant di gërëm asalaamaaleykum auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim monsieur Mbaye euh, ci turu cheikh bu Sidi Muxtaar xalifatul am di tariqatil qaadiriya ayadahu llahu wa nasara yal na ko fi yàlla bàyyi moom. amiin te yàlla may ko wér. ndax euh, ci leeram la ñuy niitu ci kàddoom la ñuy waxee ci barkeem la ñuy dund. Hmm. te sunu yaakaar yëpp ci moom la. Hmm. Euh, léeg-léeg sax nit daal ni ma euh, sëriñ bi de man dama koo gis rek mel ni dafa am lu jóge ci man lu rëy rëy ci yaakaar. Hmm. ma ne ko mënta du du loo xam ne si nii. da nga koy doo a gis ci télé wala nga gis ko xëy ne moo tax ngay wax loolu waaye boo jàkkaarloo woon ak moom mm-hmm. di nga xam ni yàllay piir la mm-hmm. yàllay kese la mm-hmm. yàllay kese euh, moo tax euh, li mu gàddu itam doon sëtu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bi di mag ci sëtu Seydina Muhammad yi comme ni nga ko waxee ñëw nga ndànk tase nañ fa euh, loolu itam ñu di ci sant bu baax ndax ndànk fa la lépp jóge directeur général Abdoulaye Dieye yónni leen mooy guddi maamam sallallahu alayhi wa sallam depuis weeru gàmmu teru fu ne fu ne nit dina fa dem di gàmmu ji waaye ñoom ñi gàmmu ñëpp moom la ñuy gàmmu ndax euh, moom mooy surtout Seydina Mouhamed bi gën a jege Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa ba pare mag ci kon nag nit su fekkee den si ni dafa am lu ñuy defal sa baay mm-hmm. ak fu ñu ko koy mënti defalee yow lañ ko defal kon fépp fu Ablaye directeur général yónnee ci kër diine yi rek mm-hmm. day jàpp moom la yónnee Euh, directeur Abdoulaye Dièye nag euh, euh, ñun surtout man particulièrement dama naan ñi ñu jox ay responsabilités étatique ñuy ay jeunes. Mm-hmm. li ñu war a def mooy ñaanal leen ndax lu sotti jeune a ko sotti ndaw a ko sotti. ndax ndaw njooy yaakaar. Mm-hmm. yent bi sallallahu alayhi yi sallam mi nga xamante si ni moom la ñuy roy te moom moo ñu fi dajale ci jamono yi. Mm-hmm. bi ko sunu borom bi di jox lu toll ni responsabilité diine l'islam 40 ans la am. 40 ans ci la lépp sotti. koo gis mu nekk mag yenn mag yi ñu jox ko responsabilité euh, pour mu defaru dina metti lool. Mm-hmm. ndax nit bu guddee ba kenn mënu koo tëb. Mm-hmm. mu gàtt ba kenn mënu koo ronu nooy def ba liggéey ak moom. Mm-hmm. waaye nit su fekkee dafa diggu doomu day day am day day souple. liggéey ak moom day daal di yomb loolu lañ gis ci euh, directeur Abdoulaye Dièye ndax. ginnaaw porte parole bi ginnaaw taalibe xaadar yi ñu doon ginnaaw. li ñu naan ay sëtu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu doon cër boo xamante ne amuñu cër bu ëpp loolu. Mm-hmm. moo tax dara rëyul ci ñun waaye dara tuutiwul ci ñun. Mm-hmm. lii rëy ci ñun mooy yëg-yëg rek. Mm-hmm. mooy lii ngeen def waaye ginnaaw bu cër yooyu yëpp wéyee dafa am cër boo xam ne moom moo ñu boole. mooy citoyenneté gi. ñuy ay citoyen di Sénégal di ay républicain nag bëgg réew mi lool. ba tax na fu président Macky Sall nommé nit rek. dañ koy bàyyi xel. bu fekkee ne si nii ma ngi fay def luy jëriñ askan bi dañuy ruq dañuy wéet suñu ruq wala ñu wéet ak suñu kilifa ni ah ñaanal leen diw ndax euh, wax naa ko keroog bi fi président ñëwee ndax le tout et supérieur à la somme de parti Sénégal ñun ñoo ko bokk euh, tey aéroport bu laati kaafee rek Sénégal taxaw ndax ku xam aéroport li muy dégénéré di nga xam ni euh, partenaire la potentiel ci république bu Sénégal kon lu tol noonu bu ñu ndaw joxoko ko hmm. président de la république defalu ko Ablaye Dièye hmm. mais ñun chenu Sénégal yi la ko jeune Sénégal yi la ko defal parce que mi ngi wane ni euh, ndaw euh, euh, wayam li naan muntahal amram djublu wayam warta don tok di nan ataya hmm. ndaw wayam warta tok di sanni ay xéer ndaw wayam warta tok jël lamiñam di ci wax nyau. gu ñaaw ndaw wayam lan la jang ginnaaw jàng gi la nga jàng nag nga prouvé ko hmm. te nit bul xool li nga xamante ni moom la la sa réew di defal déedéet hmm. xoolal li ngay defal sa réew hmm. ndax maa sawadal ard illa wa illa fala fadla li turbin ala turbin ñu di ko sant bu baax a baax ci turu sëriñ bi eh, di ko sant itam ci sunu tur ngir ndaw li mu doon ñu bokk génération te fas yéene ñëpp joxante loxo ngir ñu liggéey réew mi ndax réew mi kenn duñu ko liggéeyal te eh, li gën a sensible tey muy aéroport Euh, bokk na ci li ñu war a gën a bàyyi xel ndax ku xam àdduna fi géopolitique bi toll. xam ni ouverture totale am na waaye ouverture boobu lan la mën a indi Sénégal. dugg boobu di ñuy jaar war a jaar aéroport di fa dugg. ak génn bañ fay génne lan la mën a jural Sénégal. ñaareel bi itam mooy tey ku ne xam na ni Sénégal mi ngi yaakaar pétrole mi ngi yaakaar or mi ngi yaakaar gaz. te loolu lépp dafay ajuwaat si aéroport ndax ku fiy ñëw ngir loolu si aéroport ngay jaare mm-hmm. euh, loolu nga xamante si ni ay ressources minières la ñu yaakaar depuis yàlla sàkkee Sénégal ba suñu yoon yàlla tey mi ngi Sénégal waaye si règne président de la république Macky Sall la ko suñu borom bi ballale feeñal ko bay waxatuma la yaakaar waaye yàqin am mm-hmm. dootul espoir mais certitude la mm-hmm. léegi loolu ak fii àdduna toll nan lañ war a ñun ndawu Sénégal nan lañ war a encadrer loolu mm-hmm. ba liñ naan euh, euh, sagar du xeeñ bal du tàkk ngir ñu mën koo jëriñoo ndax euh, euh, bi ñu nekkee daara ja bu ñu daan boyal mu tëw a tàkk dañuy uti pétrole. def ko ci ngir mu gaaw a tàkk. kon ku ne xam na ni li war a feeñ senegal moo gën a gaaw ci taal réew. ndax lu ko jege mu tàkk. kon loolu ñun ndawu senegal ñoo war a conscientiser waat suñu bopp ndax. lu muy gàtt gàtt yow monsieur Mbaye ñi ngi doog a toog waxtaan. Mm-hmm. gisante nañ peut-être ci baatin. ndax euh, al arwaaxu junudun mujannada mm-hmm. ruux yëpp la yàlla bindandoo hmm. ndax eh, ca yow ma alastu bi rabbikum ñëpp la dajee mu ne alastu bi rabbikum comme ñëpp la bind hmm. waaye li ci yéeme rek mooy toogaay bi ñu toog bu ñu toogoon waxtaan tuuti rek hmm. danañ am connexion bokk ay xarit wala ñu bokk mbokk loolu mooy li nga xam ne mooy réew mi kon euh, président euh, directeur général Abdoulaye Dièye bu xamee ni réew mi dafa am sookul réew mi république la république boo xam ne si ni dafa am lu ko laytaay

patrimoine national la mm-hmm. sëriñ si dañ ciy am wàll mm-hmm. lu xew ci kër sëriñ si mu jël seen wàll dem sukk seen kanam mm-hmm. jébbal leen ko ànd ak yar ak teggin ak suutura ak ñaan kon loolu rek la de seet yàlla na ko yàlla fay li mbëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal ndaw la yàlla na ko yàlla def mag yàlla na yàlla yeggale yéeneem yéen ñi di ànd ak moom ndax euh, euh, loo gis que ci ëpp solo gën cee maanaam euh, euh, gën koo jege. Mm-hmm. moom may dese directeur cabinet mm-hmm. ndax dina wax ak yow lu mu dul wax ak kenn. Mm-hmm. di nga wéet ak moom. waaye alhamdulilah rabil alamin olof Ndiaye danaan wan ma ki la yar ma wan la sa jikko. wan ma sa àndandoo ma wan la nooy doxe yow tam yàlla na la yàlla taxaw ndax li muy def yëpp lu ci baree bari bari. xëy na sa xalaat a ngi ci. sa jàppalee ngi ci waaye intre pers li ñu naan intre crypto personnel. Euh, boo ko xool lu ndaw la. waaye li Ablaye Dieye di def mooy intérêt général kon loolu yàlla na ko ci yàlla gën a taxawu euh, ñëw gi ngeen ñëw ci bisu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bis bi mooy li doon loo xam ni tey boo nekkee Thiès nit rombalaak otom ni Ndiassane la jëm nga yëkkati benn matt jox ko ni ko yóbbaaleel ma rek sa àjjana taxaw na sa bàkkaar faru na ndax ni yenente bi toll la di leen wax ni wasalaamualeykum wa rahmatullah yàlla nañ ko téewee na gën a déwén bi